jullit bu ne sañ na ne jullit laa waaye tarixa kenn jàpp loolu la ko kenn jëlul yet ne la tey nga nekk tiijaan wala murit wala xaadir walla laayeen moo taxit kenn jëlul yet ne la tey nga nekk policier wala gendarme wala douanier wala wala te citoyen nga wala déet noonu boo xesee nekk jullit nag sam jullit wér na moo tax Cheikh Sidi tiijaan yi wax ne man day sama tarixa man bu ci kenn propagande kenn benn mu ne ñaareel bi balaa ko kenn di jël na nekk jullit te gisuma benn tarixa bu nit di dugg ci tarixa yi fi nekk te du la ngay jullit ba pare gisuma ko ñaar ñetteel bi bokk na ci vingt trois sart yi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ne da ngay fonk charia ak sunna teg sa tànk ci charia teg sa tànk ci sunna bokk na ci sartu tarixa bi Seydina Cheikh nee na da ngay fonk say ñaari wayjur li la lislaam di sant yëpp ci sartu tarixa bi la bokk bi ci des nag mooy li ma doon wax ajjuma bi passé rek xam nga moo ñëwaat léegi ki naan lu tax ñu ciy joxe lim julli lu la neex tisbaar ba xam ndax di nga am tisbaar li tax tisbaar di ñeenti rakk moo tax ñuy joxe lim ci tariqa bi looy sikkar su neexoon yàlla rek mu ne nim la waxee faqarawu maa tayassara min alqur'ani mu ne salli maa tayassar tële na ko du moo wax ne faqarawu maa tayassara min alqur'an jàngal loo lu jàppandi ci yow ci alqur'an yàlla mi wax loolu est ce que tële woon na ne la salli maa tayassar julli loola sa loola soob est-ce que def na ko lu tax mu ne la tisbaar ñeenti rakka la timis ñetti rakka la gee ñeenti rakka la fajar ñaari rakka la la indi lim booba moo indi lim lii weeri yàlla yi inna iddata shuhuri inda allahi dafa wax ihda asara dafa wax du isna asara la wax te yàlla xam na lim yëpp lu tax mu ne sama limu weer yi fukki weer la ak ñaar lii indi lim moo indi tarixa parce que bu ñu la ko joxee rek nga de ko te amul benn tarixa bu borom tarixa bi sosal boppam lu dul ci kàddu yonent bi la ko jële moo tax waxuñ gis nga fatiha kañ moo gën a for jawaratul kamal fuuf fatiha moo gën a rëy moo gën a foor jawharatul kamal moo këpp doole naasi mboolem saar 114 saar yi ci alquran yëpp moo gën a rëy moo ëpp doole jawharatul kamal du waaw lu tax fatiha nga mën koo jàng te yoroo njàpp ayatul kursi muawizatayni falaqi naasi laqad jaakum yëpp sharia may na la nga jàng ko ngir muslaay te fekk yoroo njàpp yaa ngi wàcc ci sa yaa ngi toog ci sa kaw lal yor sobe ànd ak sa soxna wala nga yor sobe jógee ci toilette bi te charia may na la balaa ngaa tëdd nga jàng faatiha ayatul kursi yu falaxi ak naasi wala déet pour taxsin gis nga naasi benn aaya rek waxuma sax aaya mu benn baat bu ñuy wax mu dahamataani moo gën a foor jawaratul kamal yëpp mu dahamataani wala moo gën a for jawaratul kamal yaasiin moo gën a foor jawaratul kamal alif laam miim moo gën a foor jawaratul kamal alif laam miim raa moo gën a foor jawaratul kamal te su la neexee nga jàng ko te doo yor njàpp pourquoi nag booy jàng jawaratul kamal yor njàpp wa illa boo ko jàngee duma yuñ cey wax yaa ko conséquences yi yow la wala déet waaw kon loolu ku déggut da ngay foog ne jawaratul kamal moo gën a foor alquran déedéet alquran pour ñëpp jëriñoo ko la moom ndox a yem moom ndox ñoo yem ndox bu doon jar litre mille francs kenn du kenn du sangu wala déet jamal jëndi boisson te ndox ëpp njëriñ boisson lii mooy jaw jawaratul mooy boisson ndox mooy fatiha ndox pour ñëpp la boisson pour say gan la lii rek la ndox pour ñëpp la ku bëgg naan naan ku bëgga a sangu-sangu ku bëgg a fóot fóot boisson ku koy fóote fóotee ko léegi nga dee ak weñ sangoo ko bu soobee yàlla doo génn sa néeg doo ko génn sangool boisson moo gën a cher foofu coca cola lu muy jar benn butéeli coca cola téeméeri dërëm lay jar fii lay jaree téeméer demal léegi hôtel hôtel boo dugg mille francs lañ la koy jaayee benn butéel wala junni te boo demee ca lawaa po ba raxasu ba ndox ma di wala naan te boo demee ca biir réception ba ne leen butéelu coca cola laa bëgg ñu ne la 3000 francs lay jar bu ndaw ma ne alquran mooy tariqa mooy jawharatul kamal jawharatul kamal boisson la yow la ak say gan gan nag du ñëppay gan dafa am gan am gàng jeex na kuy gan ci nga bokk kuy gàng bokk demal naan ndox voilà lii moo tax beneen bi ci des matuwaay yiñ la jox moo tax balaa ngay jàng jawaratul kamal yor njàpp électricité bii courant bi ñi ciy liggéey imaam nga imaam a ngi ni toog imaam la imaam la ay agent la seneleg la nekk ci kilifa Senelec yi la bokk est-ce que tey ñeme nga poto boo xam ne haute tension la nga yéeg fa rek napp ko ne damay defar fokk mu am isolation ñu isolé la secteur bi ak ligne bi. di def mise à la terre. ñu isolé la ligne bi nga yéeg liggéey li ngay liggéey ba pare ñu rétablir ko njàpp moom mooy ngay jàpp mooy isolement bi pour leeru yonent bi bañ laa gaañ. jeex na. parce que même bu yi. day des courant ci ligne day des courant ci ligne bi. jël fil lonk ko ci kaw. waaw jaarale ko ci suuf def mise à la terre pour li des ci diggante ligne bi jaar ci suuf si décharger ligne bi. mooy li Chérif mooy li ma expliqué ni haute la. jawaratul kamal haute tension la buñ la joxul permission doo ca dem. acca kum neex yéegal wow kon lu ngay def ñuul kukk consignation la tudd dafa am lu ñuy wax consignation bu fekkee ni haute tension bi la ñuy liggéeyee da ngay déglu foog kilifa yu mag yi wax fële ca aan ni leen dañu war a liggéey place sàngam dina jaar ci ñetti place ñu jox leen ñetti cadenas yoo xam ni kenn ku ci nekk bokkul ak sa moroom bi koy ubbi pour ñu tëj ko pour bañ nit gaañu ci bu loolu yëpp pare te fay nañ ko ba cadenassé nañ ko ñu soog a jël nag ni fii la léegi kon nañu jël lonk li ñuy wax mise à la ter bu ñu lonkee mise à la terre bi jaarale ko ci suuf si li des ci diggante ligne bi yëpp day jaar foofu dem ci biir suuf si nga soog a mën a liggéey. léegi isolé nañ la ak courant bi pour nga mën a liggéey jawaratul kamal benn baat la mooy courant bu mag bi mooy markazil fuhumi wal maani huwa al markaz sallallahu alayhi wa sallam al fuhum mooy courant bi al maani mooy yow huwa al markaz mooy mooy produire courant moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax law anzalna hada al qur'ana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashyati llahi wa tilka al amsaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkaruun te ñu wàccee ko ci bopp rasulullahi deful dara lu tax huwa al markaz al fuhum wal maani su duwuloon ak yonent bi kenn mënta capter alquran mukk benn bopp attanut alquran bu dul bopp yonent bi moo tax yàlla ne ko sant ma su ma jëloon alquran ji wàccee ko ci montagne bi gën a rëy mu ne di ko gis mu nekk pënd di naaw ndax du ko attan mu ne waaye maa ngi la ko yan nga attan ko di daagoog moom ba sayyidatuna Aïcha di ko joxeñ naan woo quraanun yamshi alquran juy dox ci kaw suuf la moom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ah, moo tax keroog bi seydatu sayyidatuna Aïcha euh, ah, saar wi dina ci ñëw dinañ ci ñëw léegi ci kanam keroog bi hadisul ifki jeexee ba yàlla setal ko sayyidna Abubakar daf ko ne santal rasulullahi waaye loolu diggante njàng la taalibeeg sëriñ Seydina kër daf ko ne santal yonent bi mu ne ko santuma ko ndax biñ may taqal mu ngi fi woon te mënu ci dara ki ma setal lay sant dugg ci biir néeg bi julli ñaari rakk sant yàlla loolu xam nga foo koy dégg sëriñ bu la bëgg kall kallee bàyyi ko fa dem ci yàlla loolu la seydatu saydatuna Aïcha di jàngale moo tax bi mu génnee nag julli ñaari rakk ba ñibbisi bàyyam Seydina Abubakar delloo si ko dans l'ordre fàttali ko ne law anzalna haza al qurana ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiyatillah ne ko bopp bi attan alquran ba mën laa setal yow bu fi newuloon doo set gis nga ci la yonent bi door a wax xadis bii may wax nag ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri llah yonent ku santul xéewal yi fi ko yàlla jaarale ba mu yegg si ci yow mu ne boo sante yàlla yàlla rejeté ko ndax day xam ne ku ñàkk ngor nga yàlla tëlewul tàllal ne am nga ne indi waaye moo lank dafay jox imam mbay mu jox madame mbay mu jox la fokk nga ne imam mbay jërëjëf madame mbay jërëjëf alhamdulillahi rabbil alamin shukur la yonent bi wax shukur ak a hamdu du benn hamdulillahi shukur linnaas moo tax Cheikh Seydi Ahmed Tidiane wax keroog ba muy yëg ca maqaam ya Cheikh Mamadou Ghali laaj ko a anta fii ndax yaa ngi ànd ak sa xel ndax nitu yàlla leer daf leen di ganda ba léeg-léeg wax ku wax ku màndi Cheikh Mamadou Ghali ne ko a anta fii sha'nin mooy keroog bi mu neex qadamaya haatayya ala raqabati kulli waliyin min ladun adama ila nafxati fi suur fekk mu ngi sowandu nga baal ma imam nii ci ngegenaayam bi mu koy wax moom mu ngi lekk sa gerte caafam maa la ko wax nii la sowandoo ci ngege ngegenaay yu kawe lañ ko daan tegal baal ma imam mu sowandi ci ngegenaay jékki-jékki ne ah jot naa maqam ñu ne ko ban maqam mu ne ah xadama yahaata ya te bi koy wax mu ngi jaaxaan di naan ataayam di lekk saay di di di naan saay ñu ne ko ban maqam mu ne xadama ya kulli waliyin min ladun aadama ila nafxati fi suur Cheikh Mohammadal Xaali a ngi toog nii jàkkaarloog moom nii ñu jàkkaarloo moom rek la mayoon ne ko deema laaj lu la neex te doo alku ñeneen ñëpp daf leen ko tere woon ne leen ndax yegg naa ci martaba foo xam ne ku ma ci laaj ngir di ngeen ma di nga waaye moom shérif la xasani la te yegg na ci maqam lu ko neex na ma laaj moo tax Cheikh Mohammadal Xaali rek a ko daan laaj keroog bi mu waxee loolu nag mu ngi sowandu de ne qadamayya haatayya ala raqabati kulli waliyin min ladun aadama ila nafxati fi suuri Cheikh Mamadou Ghali daf ko ne a anta fi sha'nin mu jóg toog ba defaruwaat ne ko fa lillahi alhamdu wa shukru dafa ko ne fa lillahi alhamdu mooy maa ngi delloo yàlla cant moom miy joxe cër yi te jox na ma ko ba noppi mooy maa ngi sant yonent bi mu jaar ci moom ñëw ci ma moo tax si Seydina Cheikh dégg waxam sax yomb moo tax mu ne fa lillahi alhamdu wa shukru moo tax yonent bi ne man lam yashkuri naasa lam yashkuri la ah wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ganiyun xamid ganiyun xamid xamd del siwaat moom moom moo yeyoo cant moo tax fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ard rabbil alamin ñu ne ko lu tax mu ne wa lahu alkibriyau fi samawati wal ard wa huwa al azizu al hakim moo tax sayyidatuna Aïcha yonent bi wax ko loolu